mooy léemu dugg ci gaal ak itam nu ñu dimbalee jigéen ji matu te jafe-jafe ne ca waaye nag def na ko yëfi sëriñ nag ah fexe na bërëm da jëyoo bëree bëri ndax mu man koo seeral si ñu ko bëgg a defal ah dégg nga fexe na daal bërëm da jëyoo bëree bëri pour na ko mën a seeral rek ñi nga xam ne ñoom la koy defal ah moo tax itam na xam ne ñu ko gëm lool nag bay ko gëmee ba mu jekk nag la yollee ko dem moom lay jàngale haddasa waxtaan na alxaaris xaaris ibnu hammaam xaaris mooy nettali qaal mu ne lahitu soppoon naa mu si barra waxtu wana taxee isaari sama ndirax lay wa baqala te gàncaxu isaari samay faas mooy bu ma demee ba nga ne mat naa mu kàllam wala am su may bëgg-bëgg da ci dem damaa soppoon bi aan ajooba ci bu ma tàggat albaraar yi jéeri yi ala zuhuril mahaar yi ci gannaaw yi yi ko jóg muhra dama daan bëgg de tukki tey war gëlëm yi da jaar ci àll yi bi aan ajooba ci bu ma tàggat albaraar yi jéeri yi ala zuhuril mahari ci kaw gannaaw yi gëlëmee ko ju maarab kon jidu danaa dongowu tawran ci jamono léeg-léeg ma yeeg dongo waaslu ko danaa soobu taaratan ci beneen jamono taxawran xur léeg-léeg itam ma bëtt xur comme ni nga xamee mbir yoonu àll ci géej bu lëndëm léeg ci ndend gu yaa léeg ci xur wu xóor léeg-léeg ci montagne montagne bu léeg-léeg nga jaar bu bëri beeñ léeg-léeg nga jaar bu bëri beeñ rek hatta falaytu ma dagg almahaalima kayi mooy yoon yi xam xàmmee bu neex a gindee ko yoon wu tudd jaar naa fa xam naa ko wal ma jaahila ak réeru waay yi mooy xàll yi nga xam ne amul gindee koo kaay xàll bu ne daanaka jaar naaj wa balawtu te ma nattu al manazila wàcc waay yi dëkk bu ne daanaka dem naa fa wal manaaxil ak naamu waay mooy gaare gaare kayi nandale mm. fu ne daal dem naa fa tey fii ëllëg fële rek mm. waat may du tama naccal mm. asanaa bi ka wehi fas ma ak wehi wa balaw du tema na almanaasila wàccu waay wal manaaxil ak naanu waay dëkk bu ne dem naa fa mm. garaas bu ne taxaw naa fa mm. waat maytu ma nàccal mm. asanaafi ka wehi fas yi fas wu ne war naa ko wal ma naasi ma ak wehi yi gëlëm gu ne war naa ko waan daytu ma songum loo asawaabi ka way jiitu yi te mooy fas yu gaaw yi war rawaati ma ak gaaw yi mooy gëlëm yi dama daan war rek xamul daal nu ma defee wut ci war amul fu ma jaarul si dem ci nga war mm-hmm. façon fas bu ne war naa ko mm-hmm. façon bu ne war naa ko mm-hmm. warinu bu ne def naa ko warinu gëlëm bu ne def naa ko falamma maliltu ba ma yokkatee alisaara dox ci xàll bi mbir mi nag xaw may sàppi ne fi ne daal noppal sama bopp ci yenn yi jot na wa qasanaha te biroom gaar na lii ñeexal ma arabun haajo bi suhaar ci suhaar mooy marteb homaan yàlla def soxla dikk te man daal gannaaw yi fas yi gannaaw may sàppi bi loolu xamee miltu jeng naa ilaj tiyaasi tayyaari jëm ci jéggi duus romb duus ab géej waxtiyaari fulki ak tànn gaal asayyaari gay doxa koon mm. ma ne yoon bii de dama mos gaal moom mm. fa naqaltu ma daal de ta toxal mm. ilayhi jëm ci gaal googu asaawi di samay bagage ma jël samay bagage yi tukki yóbbu ca gaal jël palaas wa tasabtu ma àndaale zaadi sama yóbbal wa masaawi di ak samay defukaay yóbbal moo toppatoo yi ba lu mu doy daal ma àndaale saa di sama yóbbal wa di ak samay defukaay yóbbal su ma rakibtu topp ma war fii ci gaal gi ba ko defee ma war ci gaal gi rukkoo ba haadirin warag aji wattandeku xànd ak ragal ko lool naadirin aji nisir ba maa ngi ni si ci ne gaal gi la dee hmm. su fekkee war naa ci wàcc dara jotuma hmm. war naa am du ma jaamu yàlla pour santee ku daa ji yet si ñaal boppam hmm. maa ngi naan man daal lii jar ci ma dafa mel ni ci xaru laa nekk haa di leen ku daa ji ngantal boppam waaye garab léeg ma daa ah, soxla man borom daal soxla daal moom waaw falamma saraana ba ñu sóoboo nag fil xulaati ci buddeeku mooy yëkkati maaw yi pour départ wa rafaanaa te ñu yëkkati asura maaw yi jamoo siraax la li suraati ngir gaaw ba nga xamee ne léegi yéeg nañ ba départ rek def samianaa dégg nañ min soiti il marsa ci tefesu teeruwaay bi dañoo dëgg ci tefesu teeruwaay bi xiina dajaa waxtu wa kukkee allaylu guddi gi wax te mu lëndëm te booba lëndëm na dañoo dégg haati fan aji hatif mooy baat boo xam ne ñu ngi koo dégg waaye gisuñ jëmm ji wax yaqool mu ngi naan yaa ahla sal fulkil qawim bam hàgg yaa ahla sal fulki ay yéen ñooñ gile gaal alqawimi gaal gu daaji jub al musajja gëre gu mm. fil bahri ci géej al azim gu daaji màgg mm. bi taqdirin aziz mm. ci dogalab yàlla mi not al alim ma xam yéen ñi war gaal gu baax gile war a jaar ak moom ci géej gi ci kàttanu yàlla ak dogalam hal adullukum du ma leen tegtal ala tijaratin cim yaxantu tun ji ko moom dana mu musal min asaabin ci mbugal alimin mu raaji métital dama leen bëgg a tegtal loo xam ne su ngeen ko defee seen njëriñ la ëllëg laay doo de foqul naa ñi wax lëxoo ne ko ak bis naa juumal ñu mooy taxalal ñu naara kasa safara wi ayuha dalil yow bir yow jëlee aji tegtale waa yow jëlee aji naa te nga gindi ñu kama yu tudd alxalilu xarit mm. alxalila xarit ñu mm. ne ko ngella niital ñu ci sa leer gi mm. defal ñu li xarit de defal xaritam ñun kay bëgg nañ ko waxal ñu lu baax li nga xam hal adullukum duma leen tegtal ala tijaratin cim yaxantu tun jiiku moom dana mu leen musal min asaabin ci mbugal alimin mu daaji métital fa qul naa ñu wax lahu ñu ne ko aq bis naa juumal ñu naaraka sa sawara wi ayyuha dalil yow bi le tegtal waa sit naa gindi ñu kama yow sidu ni kii gindee alxalila xarit alxalilu xarit alxalila xarit fa qaala mu ne leen atastasiboona wala ata wala atas atasaboona atastahiboona atastasiboona ndax man ngeen a àndaale hmm. ibna sabilin ku tumaranke hmm. koo xam ne saaduhoo yóbbalam hmm. fi sabilin mu ngi ci gafakaam ñeen ñi ne saad wasilluhoo keram xeyru saqilin duum waa diir ba ma yeb kii te du sàkku si waa ma xilin lu mooy saxuwaay dafa am koo ne ci yoon de war a moom nag mu ngi ànd ak bagaasam dul kuy xatal kenn ndax mën ngeen koy bokkaale atatasiboona ndax da ngeen mën a àndaale ibna sabilin ko tumaranke ku xam ne saaduhoo yóbbalam fi sabilin mu ngi ci gafaka te keram xeyru saqilin duum waaji diis uma yab kii te du mu sàkku ma dara saxuwaay moom mu toog rek la soxla mm. waaye du koy laaj kenn dara nag ci mu ne faaj ma naa ñu dogu xalal junoohi ci jeng ilayhi jëm ci moom ñu ñëpp ñu dogu daal ci nangul ko lim bëgg waan la naf xala ak bu dem ñuy xaay nay bil maa xoone ci njëfandu alayhi ci moom te itam luñ te nit defaral de ko soxla ca kam xàndat bu ñu ko soxlaalee dañ ko ca layee biir dina ko bismillah yaatal ko falamma stawa ba mu xemoo xee nag alal fulki ci gaal gi xaal wax na ne ba mu toogee ci gaal gi ba mu jag nag dafa wax ne ahoosu bi malikil mulki min masalikil hulki ahoosu maa ngi muslu bi malikil mulki ci yàlla mi moom nguur min masalikil hulki ci suuf waaye xalaku yi maa ngi ñaan yàlla musal ma ci yoon woo xam ne xalaku laa jaa defee ahoosu maa ngi muslu bi malikil mulki ci aji moom nguur min masalikil mulki ci soobu waay xalaku yi loolu la wax de summa qaala topp mu wax mu ne inna ñun ruwi naa du loolu nga def wala raway naa ruwi naa solo def nañu fil axbaari ci hadis ci xibaar almanqulati yëre yu ñu toxal xanil axbaari jëlee ci fóode yi ne anna allaha naka yàlla taala maa axada jàpput halal juhaali ci way réeri ay yataallamoo ba ñu xamluwaat hatta axada ndare bu jàpp na an xolama yi ci xam-xam yi ay yuallimoo ba ñu ba ñu xamlewaat mu ne ñun jàng nañ ci ay ahadis mawqufa ñi ko askane Ali ibn Abi Talib mu ne sama borom tabaraka wa taala balaa topp ak kirée li ko a jàng dana topp ak kim jox xam-xam ndax jàngale woon na am déet xam-xam boo bala ñoo laaj ku ko waroon a xam te xamu ko lu tax mu ump ko yow dañ la laaj ndax ñu ci xewoon joxoon nga leen ko am alal juhaali ci way réer yi ay yetta allamoo ba xataa axada ndare boog jàpp na ama la may ci borom xam-xam yi ay yoxaat li ba ñu xam le at wayin na ma man nag ànd naag man te ànd naag man la xooda dun musluwaay maa xooda gëre gu ñu jàppee xanit ambiya yi jële ci ambiya man nag maa ngi amee muslaay goo baax ci yonent yi lañ ko jëlee de seen bu baax wa innama yaa nag xam naa man la moodatun musluwaay maa xoodatun gërë gu ñu jàpp naa ni lambiya waxeen di te nekk na fi man lakum ñaxal leen nasihatun ne barahinuha ay layam sahihatun way wér la bëgg naa leen cee lahi biir mu nekk lahi biir goo xam ne lu cosaanoo cosaanu la li ma leen wa maa wasi'ani yaatuwul ma mooy jàppandi wut ci man alkinmaanu nëbbu mbir la moo xam ne mënu ma leen koy nëbbu wala min xiyami bokkul ci samay jikko alhirmaanu xañe te it man dama nekk nit koo xam ne ànd ak nit ñi ñi jëriñu ci man moomu gënal ànd ak nit ñi mm. di leen nëbbu li ma leen war a wa tadabbaroo settantal leen alqawla wax ji wa tafahamoo te ngeen wut a dégg li ma wax settantal leen ko ngeen jëm koo xam wa amaloo te na bi maa ci li nga xam ne tuallimuuna def na leen ko xamal wa allimoo te na ko xamle len leen waxal de leen ko jëfee te danañ ci laajee biir ñu soxla ku leen ko xamal. li la wax summa saaha topp mu xaaju sayhatal mu bàyyi xaacug aji damu waqaal mu ne atadroona ndax yéen a ngi xam maa hiya lum da mu ne gaa ñi laaj ko daa mel loolu hiya moom hirsu safari mooy gàllaaj ak tukki wala hirsu safri mooy gàllaaj ak mbooloo mu de tukki henda masirihim parce que nag dox fil ci géej wal junnatu te mooy pakk minal xam mi ci njàqare isa jaasa bu fuuree mooy bu yëngatoo mawjul yem mi duusab ndox mu bëri duusab gi gàllaje tukki la de goo xam ne boo duggee ci gaal ba géej gi yëngatu ah man nga caa muccee de yemoo hirtu safri mooy gàllaje way tukki yi indama sériyam parce que nag dox fil bahri ci géej gi wal junnatu mooy pakk minal xammi ci njàqare mm. isa jaasa bu fuuree mawjul mm. yem mi duusam ndox mu bari mm. wa bihaa ci moom itan sama la musloowoon noohun noo mina tuufaani ci tuufaan mooy ndox mu bari ma wàccoon xalak ñooñam ña wana jaa mu musal te mu mucc waman ak ñi nga xam ne maaw xaan nañoo moom minal xayawaani ci ndundat xalaamaa ci li nga ne sadaxaat wóoral na bii jam ayul quran ay al quran yi mooy léegi mu ko yonent nu wax jàngoon keroog bisu tuufaan ba mucc moom ñam àndatoon comme niñ ko jàngee ci al quran wa bihaa ci moom istaasama la jëfandikoon mooy la musloohoon nooxun noox mi na tuufaan ne ci tuufaan mooy ndox mu bëri ma wàccoon noona le wana jaa te mu mucc waman ak ñi nga xam ne maaw xam nañoo moom minal xayawaani ci dundat xalaamaa ci li nga xam ne sadaat wóoral na bihi ci moom ayul quran ay al quran qaraa topp mu jàng nag baada asatira ci ay waxi neen yu bari talaaha yooyu jàng na leen wa saxaarifa ak i naxaat jalaaha yooyu feeñal na leen mu jàng wa qaala rkabu fiiha bismillahi mujraha wa mursaha lii rekk nag muy lii mu bala nag balaa wa qaala irkabuu fiihaa bismillahi mujraa wa mursahaa sala naa ay waxi bopp ñu ci lokkar bi xaali yu bëri bëri bëri mu baax a baax ba mu bëri mu door a wa qaala irkabuu fiihaa bismillahi mujraa wa mursahaa fekk xëy na yooyele foo koy seeralee foo koy seeralee lim xamee man de sëriñ jox da la nanguwul nangam hmm. te fekk bëgg ree lim la jox rek ndax nga jokkul lu bëri la xam nga dañ ko def Mm. ah déedéet dañ ko rafet dégg nga kuréel la ñuy waxtaan moo tax dégg nga ah dañ ko rafet léegi ñu def ko de dégg mm. mm. nga ko baax wa biha ci moom istansama la jëfandikoo la muslu woon noox wa najaa te mu mucc wa man ak ñi nga xam ne maa waan nañu moom hmm. mel xaywaani ci ndundat hmm. alama ci li nga xam ne sadaat wóoral na bii ci moom hmm. ayul qur'aani ay alqur'aan yi su ma qaraa topp mu jàng maa daa saatira ci ay waxi neen te laahaa yooyu jàng na leen wa saxaarifa ak i naxaat ja laahaa yooyu feeñal na leen mu wax ay waxi boppam yoo xam ne moo ko fabriqué ba mu bëri ci gannaaw nag mu jàng wa qaala irkabu fiiha bismillahi mujraha wa mursaha summa tanaffasa topp mu nokkat nag tanafusal muxramina nokkat ak ñuñ diisal ñi ci bor wala nokkat ak ñuñ bugal ñi aw ibadillahi wala nokkat ak jaami yàlla yi al muxramina ñëri ñu ñu teral ba mu jàngee ba ci waqaala irkabu fiihaa bismillahi mujraha wa mursaha dafa rëccal dënn bi mel ni koo nekk ci métit bu tas mel ni koo xam ne xaalam dafa fees xolam dafa fees ci leeri xaqiqa ba nga xam ne mënatu da ñàkk fokka mu ne xaw daal borom bon yu jàq la daal nitu yàlla la daal bu xolam fees waaye lu mën xew daal rëccal na dënn bi daal su ma tanafasa topp mu mm. nokkat tanafusal mu muxramiina nokkat nu ñu ñu diisal ñi ci bor wala ñu bugal ñi mm. aw ibadillah wala nokkat ak jaami yi mm. al mukramiina ñu dañuy teral wa mu ne ama ana daal man faqad qumtu taxaw naa fiikum ci yéen maqaamal muballixiina taxawaayu way jotal yi li yuballighi shaahidu minkumul xaiba mm. boobu li yonent bi wax mm. man def naa ko de mm. waxaloon nañ ma waxal naa leen wa nasartu layee naa biir lakum ñehaa leen nu sal mubalixiin layee biir ak way sori yi ci layee bi way balaxaali te itam xàgg naa fu sori ci layee leen biir lii mu wax nii boo seetee ñi ko xam bari na ci ñu ko nanguwut a wax wasalatu soobu naa bikkum ci yéen maaj bikum ak yéen maaja trafidin yoonu way jubi war naa leen li nga xam ne mooy li ahlu rusdi di doxal fasat yàlla na nga seede allahumma wa anta yow xeyru saahidi yaa gën ci kon yàlla mooy sama seet sama diggante ga waaw ne ko mu hmm. ko qaala wax na alxaaris ibnu hammaam hmm. ne fanga jabanaa héemu looñu bayaanu hoo biralam albaadi tulawati bu daaji feeñ ci taar ñu héemu ci biralam bu rafet bi waxajat te coow aswaatunaa suñuy baat bi tilawati ci jàng la wa ko ñun ñëpp ñu bokk jàng waxaalar kabu fiha bismillahi mujraha wa mustaha wa aanasa mu wala wa aanasa mu yëgal qalbi sama xol wala wa anisa ah wa anasa anasa wa aala def wa anasa mu yëgal qalbi sama xol min jarsihi ci baasam jarsu mooy loolu noonu walla walla boobu ñuy takk ci buntu église walla buntu école da ko yëngatu muy fëgg bu baax a baax mooy jarsu mm-hmm. waaye baat bi la ci jublu rek mm-hmm. maarifata ayni samsi xam jëmmi jantam mm-hmm. kaddu gi nag ci la ko xàmmee waana sa mu xamal mu dal di yëpp bi sama xol min jarsihi ci baatam maarifata ayni samsi xam jëmmi jantam fa qultu mu wax la woo ma ne ko billadi giñ naa ci buur bi nga xam ne saxara tàggat na mu albahra jiya gay ko ju lëgg mooy géej gu bëri ndox gile maa ngi giñ ci yàlla mi ko tàggat alasta xanaa déedi yow asaro jiya nga def ko ju saroji billadi giñ naa ci buur bi saxara tàggat na a géej allu jiya gudaa ji bëri ndox mm-hmm. alasta xanaa déet yow asaroo jiya nga def ko jug sarooy loolu laa wax de mm-hmm. fa qaala mu wax lii ñu moom mu ne mm-hmm. balaa aha kañ de man la di waal yax faa ndax dana nëbbu ibnu jala xam na koo xam ne xajut ci kumpa ah man kay fu nekk neex naa xam anam nu jala wa wa sanaya foofu la ko jëlee fa ahmadtu ma sant hiina idin ca asafara tukki ma ne ah lii de ci njëriñoo dox la bokkaat ah njëriñ lu la dajeeg abu zeydin wa safartu ma feeñal an nafsi suma bopp i safara bam feeñalee boppam ma itam ko ki ma ba ma feeñoo walam nasal dañu ñu nasiru di dox ñi xaw yoon nag de dox wal baxru te géej gi rax woon aji dal la géej gaa ngi dal amut benn yëngatu yoon wi neex lool wal jawwu jawwu ji sax woon aji huri la jawwu jaa ngi leer naññi walay su dund bi sax woon aji sell la biir gi lépp a ngi doy wa samaanu jamono bi la woon fola mel ni affaire perminaatu la daal yoon bi neex na torop daal waana man ajidu danaa fekk hmm. ajidu danaa bég hmm. li liqiyaanihi ngir dajeeg abu zaydin hmm. wajdal musri bég aji xooman bi xiyaanihi ci wurusam wu sell maa ngi kontaan ci dajeeg moom ni nga gisee ku alal de ko kontaanee ci wurusam waana man ajidu danaa bég li liqiyaanihi ngir dajeeg abu zaydin wajdal musri bég ak aji xoomal bien xiyaani yi ci wuru sam wu sell waafrahu danaa bégee bi munaajaatihi ci diyaaleeg abu saydin faraxal xariqi bég ak aji namoona lap bi man jaatihi ci muccam ku demoon bay bëgg lap su muccee na kontaane noonu laa di kontaane ci waxat abu saydin ndax saa suñu mu am fu ma jëlee ku xam ne suñ ma ko baxoon rek hmm. njuumte man na maa yóbbu fu sori hmm. ilaa nasabat ba bitta nag hmm. al junoobu ngalawal junoob ñoom moom nag ba ngalawal junoob dal de ñëw dégg nga lu ci tegu ilaa nasabat ba bitta al ilaa an asbatil junoobu wa asbatil junoobu waaw kii la kii la kii xuboobu la def ba te bitt aljunubi waa légal de riwaaye kii dafa ne xuboobu waxaasa ba te bitt alxuboobu yëngatu géej yëngatuy géej xuboo bi xaayin moo jamatin jamu xabbin wa hiya riwayatu sahiha an ibni jahwarin wa xayrihi wa huwa hayi jurrihi wa tirabul ma wa wallati sahahu alfanjadihi d' yàlla ay téere yu bokkul hmm. bokk waxaasa ba tibit alxunoobu aljunoobu wàlli géej gi hmm. wana siya dal way tukki yi hmm. maakaana lu mu soona xam ci bànneex yoon neex gam neexoon bërki démb bërkaatu démb salaw jaaxle gi tax na fàtte nañ ko de wajaahum dikkal leen almawjuduus min kulli makaanin ci bépp barab fu nekk rek duus a nga fay bawoo fa mil ñu daal jeng li haasal hadasi ngir bi la xew-xew asaayiri bu daa ji jéqeeku ilaa ihdal jasaayiri jëm ci lenn tefes li nu riixa ngir nañu noppal suñ bopp wana sa riixa ak ñu noppalu ray sama tuwaati kem lu dëppooye ak réewum la mbir mi na noo xam ne daal ne li a wóor daal mooy suñ sooxee ba àgg fu jege fu nit mën a teer nañ fa teer daal dallu suñu dalloo ba ngelaw li dal ñu doore wéy fatama daa dal di wéy mm. intiyaatul masiri jafeñ ak dox xataa na bi dafa jeex asaadu yóbbal xaral yasir dara lu néew waaye ngelaw li te dagg ñu nekk ca tefes ma liñ liñ pare woon yoon wi ci la ñuy dund kenn ku nekk lim defoon muy yóbbalam ci lay dund te dematuñ kaas guñ fa ñu jëm ci loolu lañ nekk ba daanaka liñ yoroon jeex na wala li ci def moom ku bëgg a jàlli du lu mën a yóbbu nit fenn daal dégg nga hmm. fa qaala daal di wax lii ñaal ma abu zayd abu zayd ne ma hmm. innahu luy bir hmm. lay yuhrasa deebu làqee jananal janal hoo di kottiteel hoo bant bil xoo di ci jikki gaal gii lu fi nekk luñ fi andi la boo fi toogee inna wa naka luy mbir la yuhaasa débu làqee janal hon di kotti teel hon bant meññetam bant bil ko hon di jijig faala ka ndax ñaan na la fistisaare ci son hon di ci sakkoo texe mooy génn jëme génne jéem a génne sens bi son hon di ci yéeg man li sama xelaat hmm. mooy gannaaw ci tefes lay nekk ñu yéeg wàcc ci tefes bi. waaye ci raasu gaal a wàcc ci tefes bi. loolu daal laa xalaat. xaalis ne fa xultu ma la wu ma ne ko. Mm. inni man laat ba ma maa min zillika ci sa kër man kay comme sa takkandeer rek la. Mm. waaw waa dama wax te maa gën a nangu itam min sa dàll man kay loo wax rek mooy sama wax. Mm. sa waaw mooy sama waaw. sa déedéet mooy sama déedéet. en tant que maa mm. mm. mm. ngi ànd ak yow. xaw ma ma déedéet. loo wax rek mooy sama kon lii sama mooy nañ dem. fan la naa ci buur. ila jasirati jëm ci tefes ma. ala danfin ànd ak doxaadi. minal marirati ci kattan. ba mu ko defee ñu wàcc. topp tefes mi. fekk booba sonn nañ. yàgg nañ ci tumaranke. suñu yóbbal jéeg naa jeex. suñu yóbbal jeexam. wakilaana képp ci ñun. linar koda. linar koda ah. waaw linar koda. linar koda ngir nañu saj mooy ngir nañu gaaw. Mm. fi mu tara il mirati ci sa ku xont. Mm. yéen nañ génn seet ku ñu jokkal. Mm. wakilaana te képp ci ñun. muy man ak moom kum ci mën a doon. layam li ko dum moom fëtil ak kem fëtil boo man dara aw ma ko moom dara aw ma ko. wala yettadi te du gindeeku fii haa ci tefes mi sabilan yoon xamuñ fi kenn nit nag xamuñ fi kenn nitam nag fa aqbal naa ñi wëndeelu ñi jublu ne joosu de wër xilaalaha ci biir tefes mi biir dëkk bi wana tafayya u ñii kerlu silaalaha ay keram ñu topp ci dugg ak génn rek xataa day naa ba ñu fël ilaa xasrin jëm ci njinde masidin la da lu ñu yëkkati ñu doog àgg ci tabax bu gudd xam ne la woo ñi xal na ko baabun bunt min hadidin ci weñ ñu ngi ko defal bunta weñ wa doona woo diggale na ko sumratun am mboolo min habidin ci jaam waaye bala nga fa na ay jaam ñu bëree ngi toog ci buntu bi hmm. xëy na fi daal place patron la hmm. fa naasam naawum hmm. ñu leen waxtaan li na taxidahum ngir nañu leen jàpp sullaman ñu de kerkeraan te mooy seel ila listiqa yi jëm ci héeg waar suyatan te day goj listiqa yi ngir ñu looy leen waxtaan hmm. pour man leen def jaarukaay daal hmm. ba man fee jëlee daal hmm. faal fee naa ñu fekk kullun kullan képp minum ci ñoom kayiban mu daaji jàq xasiran daaji méttilu waaye ñoom ñoom daal ko ci wax fekk mu sawara di lool tey lool xataa xil naaw ba ñu jortu ko kasiran muy ku ñu damm aw asiran wala ku ñu ko jigéen daal dafa mel ni rek ku dammale cër mm. wala ku nekk ci buum boobu ñu mm. ko jàpp ci xare mm. fa qul naa ñu ne leen ayyatuhal xilmatu ayeen jaam ñi de maana lan haadil xumma ma lii lu ko waral fa la muy jiiboo tontu wuñ mooy xëyu wuñu an ni daa woote bi wala ba woo tudduñu bi bay daa lu weex wala saw daa du caageen lu ñuul bañ leen waxee daal loo waxut yow mu fa newut ñoom waxu jóg bu tontu rafetee tontu wuñ bu tontu ñaawee yi tontu wuñ wala ba woo tudduñu bi bay daa wax ju rafet mooy lu weex wala saw daa du caageen ay ñuul mooy wax ju ñaaw falamma ra'aynaa ba ñu gisee nag naarahum naarahum naaral hubayidi falamma ra'aynaa ba ñu gisee dafa am te kii dafa falamma ra'aynaahum naaral hubayidi falamma ra'aynaahum naaral hubayidi daf di riwaaye ak falamma ra'aynaa naarahum naaral hubayidi loolu ngeen falammaa ra'aynaa ba ñu gisee naarahum seen safarawa naarahu baahi bi muy kem safaraw xoyantaan ci ñàkk solo wa xubruhum seen baatin ñu gis seen baatin kasara bi sabaati mu mel ni njunuxi xàll bañ leen gisee ñu ay nit ñoo xam ne soxla du fa ñëw ci ñoom te waxtaan moo wara te nit mën da waxtaan ak ñoom kon naa ñeen sahat bon na alwujuhu xar kanam cam boobu yàlla wa xëbbuha bon na allukaha ku bon waman ak koo xam ne yar joohu dana ko yaakaar cam hmm. yéen daal ku leen yaakaar du dara hmm. loolu la ñuy wax fabta dara dal di jàkkalante xaadimun surga hmm. xaadim mooy jàmm buñ tàpp dégg nga dañ mën a gudd fan te yomb a jooy dañ <laughs> mën a gudd fan te yomb a jooy loolu la yoo dégg nga mu ne fabta dara dal di jàkkalante xaadimun xan xalaatu bopp xawee na ko kabratun magi koo xam ne màggat na xam kuñ mën a gudd fan hmm. waxarasu tegaal ko xabratun rongañ xaati mu ngay jooy ci li ñu wax te yomba jooy hmm. mu ne benn xaadim boo xam ne mag la kay hmm. mu ngay jooyaal moo jàkkalante waxaal mu ne yaa xawmi yéen sa yéen samay bopp laa toosi hoonaa bu leen ñu yaatala sa ban ci ngañ wala too ji noona bu leen ñu métti dal xat ban ci yedde mm-hmm. bu leen ñu xas mm-hmm. bu leen ñaxtu mm-hmm. li ngeen foog duu ko dañ leen talul rek fay naa naka ñun la fi xus ñu ci njàqare saa melin lu daa ji matale njàqare ci lañ nekk loo xam ne déegut kenn kenn ci barab ñépp a jàpp wa ak soxla saaxilin bu daa ji soxlaal xanil hadis wali si waxtaan hmm. dañoo rek hmm. fa qaala daal de wax la ko abu seydin hmm. abu seydin ne ko naffis yëralal xinaaxal bëssi wakkub tatak njàqare abu seydin ne ko àndal ak sa sago tuuti wan piste na nga tudd in qadarta boo manee ala nafsi ci li la jaaxal soo ko mën a wax wax fa innaka naka yow sa tajidu xel si ngay fekk min nii ci man harrafan xamaakoon kaafiyan budaaji doy wa safan ak melalakoon saafiyan budaaji safa waxal mi li jaaxal soo ma ko waxalee mën naa am ma am ca xam lool wala ma jaay xam man koy teggi mm-hmm. te ku biir lay do hin nag mm-hmm. fi ma xam lim lay fala lay jaaral mm-hmm. mu ne fa qaala mu wax ne mu ne ko yàlla xamal ne anna rabba hada al qasri borom njëndi lile woom xutbu haadihi l buqaati mooy kilifa suusile pàkk bi le tabax googu digile ki ko moom mooy kilifa barab bile de wa saaw haadihi ruqaati mooy buura suuf si yëpp na woo ndare moom nag lam yaxlu féexut min kamadin ci njàqare li xulub yi ngir féexam mi wala din ci doom waaye xam nga àddina ni mu demee rek da ji jekku ci lii am lu la jaaxal moom nag yàlla da ko jox takkandeer lu daal mooy jaaxle àddina am walam yasal dañu yastakrimu di teddulu mm-hmm. mooy de sàkk ñu tedd mm-hmm. almaxaari sa jëmbatu way mm-hmm. waya taxayaru te muy tànn an nafa isa way foor minal mafarisi ci jongama yi nit ñu ñu wax ne baax nañ yax yu ñu wax ne baax nañ rek def na pexe ji jaxasoog ñoom buñ de ay góor def na pexe ci wàllu denc ba buñ ne ay jeebeer def na pexe ci wàllu xam ci jeebeer mm. yow yi ñu wax ne baax nañ rek mm. def na pexe ci jaxasoo ak ñoom mm. ilaam ba bégaleef ko bi xam li xaqilatin ci xam mbëg jigéen ju tedd ba yàlla dogal na xam kuñ ko wax ci waa këram ne ko mu ngi ànd ak dara waa dana dal raqalatuwoo tàndarma mooy tàndarma gu gudd mm. bi fasilatin mm. ci mu tàndarma gu ndaw mm. ñu dem ba mbir ma feeñ yaakaari doom dëgër kon nu dirat nisireef la hoo ñaal hambu boobu an nu sóoru nisiri xaati ñaan ki kay bu juddoo def nangam dañ def nangam fa seeni mbir mi lool mm. comme ko am xewal goo xam ne bég na ci mm. wasiya takkeef mm. ala yaamu fan yi wasóoru ak weer yi heure bu nekk lam laaj ci toppatoo wala maaxaana ba jotee nag annitaaju ngirteli wasiya xa te tëggees ataw ko ndombo gi wataaju ak mbaxanaam buur mi bi nga xamee ne si àgg na ci weeram mm-hmm. bañ préparé li ñu war a def ci xale bi mm-hmm. juddu jot na xasura mm-hmm. jefeñ maxaadul wane matuk si pigi ndaw si am jafe-jafe daal mat wi jafe xataa xiifa baragaleen al ahli ci cosaan bi wal fane ak banqaat ñun xamuñ sax doom waaye ndey ji sax wóoruñu dana mucc comment fii naa nekkul ci ñun man koo xam ne yaari fu dana mu xam xaraaram sax foo de war a toog ba dëf kenn ci ñun xam wala yanamu te du mos am naa ma nelaw illa xiraaran dara lu kenn ci ñun daanaka gëf rek waaye nelaw kenn def li la wax summa ajasa mu waaj dul bu ci jooy wala mu xaw war a dada mu al istirjaa wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tawala mu guddal mu ne bi mu waxee par jooy nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Abu Seydi ne ko buy moom waaye ba sa dal maa ngi yor affaire bi de <laughs> Abu Seydi ne ko loolu moom hmm. dal ana mu ngi uskun dalal yaa haasa wa tafsir bég wa absir te nga bégee faraji ci yër yër wa basir te nga bégle soo yeboo daa yow sa xel dal nga dalal xeli nit ñi nekk na fi man xasimatu talxi gàllaaj mat allati gàllaaj gi nga ne intasara tasaaroona mm. samuha déggam fil xalqi ci bindee bi mm. man lu ñuy dimbalee kii mat mm. xam naa ko de te muy ne foo dem ci àddina bi fokk nañ ko gëm de <coughs> fa tabaadara dal di jàkkalante alxilmatu jaam ñi ila mawlaahum jëm ci seen sang ba mu tabaasirina mbirum di way béglante bin kisaafi balwaahum ci wuññeeku seen tiis a mu ne booba la gaañi gaaw a gaaw dem ci seen ba de wane ne jaaxle gi moom xettale ko am na falam yekun nekkut illaa kalla wala illaa kalla wala la kem laa wala dit bu gàtt boo xam ne xanaa dérir kaye xew rek dañ ko xattaa barasa dal génn man ko xam ne hal mama hoona mm. binaa ci ñun mm. ilayhi jëm ci mawla bi mm. <coughs> ñoom bi ñuy ak bi ñu wakkaale xëyu leer na la falamma daqal naa ba ñu tabbisee alayhi ci mawla bi wa naa te ñu taxaw bayna yeday ci kanam seen sang bi bañ demee ba àgg ci kilifa gi ba taxaw ci kanamam wax na moom kilifa gi li abi seydin ñaar abu seydin ne ko li yéex ni kana la ndoppaloo manaalu ka saxam in sadaqa bu dëggoo maqaalu ka sawa wala bu dëggale maqaalu ka sawa wala bi fil te moyu qaalu ka saxar fa ah xam naa soo fi amee dajjal de yow sa xol moom dana seet du sawe yàlla ah li yéex ni kana la ndokkaloo manaalu ka saam mm. in sadaqa bu dëggale mm. maqaalu ka sa mm. wax walam yëfil te moyut faalu ka saar fa wasta dara dal di teewlu ma abu seydin qalaman kalima mabriyan gade guñu xeet wasabadan xeetu doj la bahriyan bay ko ju géej xam nga kër gi ne am na fi kër ak buur la mooy nañ ko andil xalim ko neex a bindi indil ko itam sabadun bahri hmm. sabat bahri bi rek mooy gàllak gi hmm. soo ko jëlee takkal ko jigéen ji matu hmm. dana gaaw a xettale ko waaye def fexe nag ba seet nu mu ko seerale mooy nañ ko indil yooyu dégg nga wa san faraanan ak san faraan na ko fii may wardin ci ndoxam ward nasibin mu daa ji dañ koy indil gàtt safaraam hmm. boo xam ne hmm. ward hmm. mu set wecc fa maa in rajaha delluwut an nafasu nokki taw ko dira lu muy teewaleer maa li nga xam ne iltama iltama sa sàkku na ko ah ba ñëw nokki ah ñu na fa sajada daal di sujjoot abu seyrin abu bi ñu indee yii waa bara mu normal xar kanam bi mooy jot bu kumbu hmm. boo xam ne seulement lépp ay taqasu hmm. wa sabaha mu wax subhanallah hmm. wa astaghfara mu wax astaghfirullah wa amada mu sori loo alhaadiri ne woy tewi wa nafara mu koñu ne mu ne a ah gaaw de xamal leen li ma def foo gis yàqu de sori leen ma aw sori leen gaaw de daw daw sori su ma axada topp mu jàpp mm. alxalama xalimba gi mm. mu jël xalimba gi mu mm. was xan para mooy mu fallu pour bind wakkata bu mu bindee ala sabadi ca doj mm. bil mu sanfari ca daay sanfaraan ja mm. daay sanfaraan ja boole maaw ward mm. ci la bindee lii de ñëw ca kaw doj wa suñ gisoon lim bind mu dee mu ne ay yuhaasal jëniinu ay yow mi ne mbuy ma yow doom jële ci sa biir ndey inni man nasiwun aji laa yee biir laa la kañaan dama laa la yee wannu suute laayee biir suróoti diini mu ngi bokk ci sartay diine yi te laayee biir diina ko rek ante yow mustansimun aji jabaneku nga aji lakku nga pikin nin ci nee kaninin buraaji ñoŋ buraaji sutur law sa barab boobu nga nekk day barab boo dal la ci yow boo am jàmm la wa qararin saxuwaay makinin buraaji dal mina sukkuni ci la nga nekk day hmm. ku dal ci yow hmm. maa tara den ngay gis hmm. fii ci kenn boobu maa lu xam ne mu la tiital min il bin tukkee ci xarit mu daajin bu daajin bu nooneel wala addu win du ca genn noon mu bin bu daaji biral bañante gi nekk file te gu ñëw nëbbul ak guñ nëbbul amul foofu nga def waaw bañante gi nekk fi ñu nekk ñun mm. nga nekk de mm. maa tara den ngay mm. ci moom maa lu xam ne yarama ko dana mu la tiital ci xarit mu jin bu daa ji na bu nooneel wala addu win du gen noom mu binin bu ji fa mat fa matta ma baras waxtu woo génnee na min wu tukkee ci foofu ker boo jógee foole na taxawal ta nga jàllar beku ila manzilil asra jëm ci wàcc wàcc waayu lor mm. wala woon ak dowaadi mm. soo jógee foofu nga nekk mm. ba dikk fii fu ñu lay loree da la dowaadal fa ngay dem watara a dal di feeñ la kañe àlla asoqa u texe haadi àlla bi texe haadi goo xam ne talqaa da ngay dajeeg moom fatab fatab kii ngay jooy la woo ngir moom bi damen ci rongañ xatooni yooyu doot waa su ñëwee fii. Mm. da nga dajeeg coono yoo xam ne. Mm. ko jooy ba tey de. Mm. awatara a feeñ la keñaa la soq aw texaadi. allati texaadi boo xam ne ah, da ngay dajeeg moom. fatab kii ngay jooy loo ngir moom. bi damen ci ronga ñett ñuy doot ko. fasta dim ta xooxal. hay sa kër sa dundu. arraxiida bu daa ji yaa. sa kër gu neex googu toog bi. fahaadir wattandegul hmm. anta bi ha ba nga jaayat hmm. alma kooka lu ñu wóolu bit hmm. mas ci lu ñu jot foofu nga nekk xam nga li nga fi nekkee fii xamagoo loo fee nekkee waxtaris na nga wattandeku min mu xaadayen ci aji wuruj lakka ñi àl la yarqii ka jooj dana mu la mocc liyul xiya ka ngir na mu la sànni finance bi ci mbugal al muhini mu daaji doo adal am moccikat kuy def pexe su nga jógee foofu mm. dikk jaar ne su bëri mbugal si mm. matu ko mm. waatari na nga wat ne gumi mu xaadeen ci aji wurit la ka ñaal la yar xii ka kook dana mu la mocc il xii ngir na mu la sànni bilan saa bi ci mbugal al mu yiri mu raaji doxala mu ne wala am rii sama dund mooy sama ngi xam na sootu laaye naa la biir walakin li fi nekk nag kam na si yéen bari naa ji laayee biir musabba yéen jëriñu nirale dafa nee ni ci kuñ jam tuuma mm. waaye dafa dul kullaa bi rek ñu dégg mm. su ma inna woo topp moom mm. tamasa far na almaktuba lañ bind alaa xaflatin ci càggante fexe na ba far liñ bind te kenn gisu ko wa tafala mu tawli xale yi moom mi aata tawlatin téeméeri tawlit nekk de tawlit tawle rek wasada mu takk asabada doj wa fii xibxati hariirin ci mosu hariir sagaru hariir mu jël doj wa sagee te ko fas ci sagaru hariir baanama dammaxaa ci gannaaw bu mu ko réexee bi abirin ci gàtt ay xeeti gàtt yu jaxasoo yu bëri dañoo abir benn gàtt nii rek buy xeñ waaye ay gàtt yu jaxasoo yu bëri na abir waa mara mu digle bi taliqihaa ci ajum ci haajam mooy takkam ala faxidil maaxidi ca luppam aji matu ja mais mm. nañ ko de matu mm. wala taalaq ak de haj mm. bi haa ji moom yeddu haa yedden loxol aji haydu waaye na jigéen ji fóot moom ko takkal falam yëkku nekkul illa kadawaqi saribin ndarek em mosak aji naan afwaaqi haalibin wala dogeelab aji ratt tandalax du muy génn soxsul wala di jëmmi gune gi li mm. xisi sa li sa sabadi mm. ngir jagleeg doju béewa bi mm. qudratil waahidi ci kattan yàlla mi kenn assamari kële ku mu soxla tuuti rek mu de dégg mu ne daal biñ ko takkalee kii bi ak bi doom ji juddu du gàtt fekk na yëpp nag doj la sabat baari bii la ci kattanu comme talaa feer alxasru njéndéeli fu booran ci mm. mbégte mm. watu tiiram naa walees hamidu wa sangam njéndéeli mooy kilifa gi maa mm. bidu ak i jaamam suroran ci mbégte wa ahaata dal di léem nag aljamaat mbooloo mi bi abi seydin gaa ñu abi seydin tus nii de tagg alayhi ci moom hee ñu tagg ku gaa yi jeex nañ daal léegi da ngaa dajee waaji de kayak bi ba tey de mm. ki de góor yàlla piir la mm. mooy loolu la gars yi wax wa mm. tuqabbilu ñu ngi fóon ki day ñaari loxom gaa yaa ngi fóon loxo yi wa tadabarraku ñu ngi barkelo bi misaafi tibre yi ci sol ñaari ci ci laal ñaari sakaram yërim sol yoraf ay gars yi ngi dik edda laal daraay ci seen yaram wa tadabarraku ñu ngi barkelo bi misaafi tibre yi ci laal ñaari sakaram hatta fu yi la jenerale ilayya jëm ci man mm. anna woo naka moom mm. alqaraniyu koju qaran kala uways mm. awil asadiyu wala koju asad kala dubays ci jàng lool bu ma sagar yi daal ak ni ko nit ñi gëmee damay nuru ne uwaysul qarani laa ànd uwaysul qarani moo gën ci taabiyoona yi yonent bi na waxoon ne moo gën ci ñuy ñëw mm. kam waxoon ne moo gën ci ci ñuy ñëw mm. wax ne ku dajeeg moom na nga ko wax mu ñaanal la njéggal mm. mandarga yam ci joxe woon ci Uwaysul Qarani la daj dafa waxoon ne ci Banu Muraad la bokk dafa waxoon ne itam day am ne moom lay faatu xaale dafa waxoon ne itam dafay nekk yaayam ju màggat taat ji moom lu nekk sëñ bu baax a baax Seydina Omar jil Seydina Omar bàyyi woon na jaxal moo si mu laaj ji jot na muraad xaaj ci nañ gëstu na ko ba gis ko ba mu ko gisee sakkoor na dajeyaat ak moom weesu nanguwul nag nanguwu ko de xanaa nangu ko de xam na ñu mu dajee doon ci saaba yi yonent bi loolu hmm. leen waxoon ne yonent bi yéen takk leeram ngeen xam hmm. xamu leen ma takk leeram ngeen xam hmm. yéen ñëpp la wax bagaay na ko baji ibnu abi quhabata mooy abu bakr mu ne baji ibnu abi quhabata waaye loolu na firiwul ni moo gën a saabu nabi firiwul loolu nit mm. mm. mm. la ko xam ne bu wàññaan bu desee dana ko saraxe bu reer jotee bu amee bu reer lu ne mu saraxe bu lekk bu desee mu saraxe la daan noonu daan daal da ko yéeme woon la daal yaakaar ko mu ne amoon na soxna yaakaar ko exactement ilmu boobu ak muxtaar min manaqibil axyaar ku jox mooy téere bu ku jox mu xaaju ñaare da ngay rocci téere yu ko wër da ngay ma ne buur la woon hmm. mu ne xaama Uwaysul Qarani laa tooga ndax hmm. ni ko jàppee muy sëriñ hmm. Dubaysul Asadi laa tooga ndax niñ ko falee comme buur Dubaysul Asadi jamono bi waa ji bi waaw de bind téeréem bi moom mu ngi dund léegi bi mu déggee ne Hariri tudd na ko ci maqam ah jubal na ko ci maanaam ama ne tudd yi baat bi xaal ju bëri la jaariri yu xamoon moo du baytul asad yi hmm. buur la bi mu déggee ne tudd nañ ko ci ma xam hmm. ma yowoon na joxaay su bëri yowoon waaye digg bii moom hmm. ci moom la yow moom bu mu ko seetee man ñu waje ko damay bëgg a foog ne man daal du baytul asad yi laa àndat wala uwaysul xaran yi su man saala topp soblantoo mm. alayhi mm. mm. ci moom min jawaisil mujazati ci mayi fay njëkk mooy neexali fay njëkk jaay sa mooy loo xam ne danga koy jox ku def ndam mel ni danga koy njukkalee daal refi kado la daal min jawaisil mujazati ci ay mayi fayante njëkk mayi fayante fa wasaili silate ak wéy jot si may maa lu xam ne xiyada dogalal na mm. la ko ñaal ko alxina koom mm. wa bayada te mu leeralal ko mm. mu naa xar kanam mel mu ne ci booba rek <coughs> la ko ba nit ñi jox doy na ko koom wasaili silaate ak jottale ko ay ay may ma way jokkaloo yi may maa lu xam ne xiyada dogal na la ko ñaal ko alxina wa bayadat te mu leeralal ko wajal mu ne hmm. dañul hmm. yan taabu hoo di ante ji moom hmm. ak daxlu may gudaa ji tabbisi mus nu tija waxtu ba ngir téefee mbuttu ba mooy xale ba mu ne foofu la nekk heure bu ne koy jox daal koo dikk joxe génn rek keneen dikk joxe génn rek loolu daal bi xale bi juddoo mm. moom lañ fa nexee mm. ilaa anta ba joxe mm. albahru géej gi al amaana hóoluloo ba géej gi daal wata sanna te jàppandi alin maamu wéy mottali tukki ilaa omaana jëm omaan omaan moo ñu taxoon a jóg léegi nag géej gi dal na ku bëgg dem war naa dem waaw walam yasal dañul yen taabuhoo di ko gaar mooy di ko dikkal dikkalaan hmm. a daxlu may gudaaji tabbisi hmm. mus nu tija waxtu ba ngir teefee hmm. a saxlu mburtu ba mooy xale ba ilaan ata ba joxe albaru géej gi alamaana wóoluloo wata sam naa te jàppande alimaam wéy ilaa omaana jëm omaan faktafa dal di doyloo abu zeydin bi neex la si ci may mm. gi wataa ba te mu waaj mm. li rex la te ngir laxas mm. abu seen gis na ci yoon la neexoon fii mbiri ko bi taxoon a jàdd asalaw lu yëfi neex neex nag moom bu dem jotee naa dem rek mu tàggoone maa ngi dem falam yasma tabewul mayewul alwaali waali ji bi xarakati yi ci yëngatu abu seen mooy ci toxalum baada tajribati barakati yi ci gannaaw nattu barke waali ji ne ko yow daal luy wuti feneen lépp mën na laa fekk fi yow daal def ko muy sa kër sa waaw daal suñu waaw la ñun ñëpp sa déere suñ déere ñun ñëpp la loo soxla ñun ñëpp suñ soxla suñ soxla la la neex rek moo ñu neex fi mu daal yow looy mën a wuti daal xamal ne tey fekk si la bu yeboo nga toog falam yasma mayewul alwaali waali ji bi harakatihi ci toxalu abu zaydin haraka mooy nuqala banda tajribati barakatihi ci gannaaw nattu barke bal li aw asa digle moom waali ji moom waali ji bi dammihi ci tappe abu zaydin ila husanatihi jëm ci usaana mu ngi bàyyeekoo ci husnu njàqare mm. mooy ñi nga xam ne boo tolloo ci jaaxle mm. da nga leen soxla mm. mën la caa xelal man la caa def lépp pexe dafa ne ku mel nii gannaaw jaaxle moo kaa dinaa ànd ah boo bu dikkee ba ci yow noo mën a def ba nga xam ne du demati mooy gën avance digle na bi dammihi ci tappe abu zeydin ila husanati jëm ci mbooloom mm. waan tutlaqa ak bu boyalee fat mm. yeddoo loxol abu zaydin mm. fi xisanati ci dencukaayam mu ne itam nag lépp lu mu soxla nag ah nañ xam ne ñu ñëpp lay suñ soxla boo kenn jéem a gàllankoor ci benn bëgg-bëgg lu mu soxla nañ ca gaaw xaar léegi abu zaydin xëy na wuute rek la doon def lii feeñu na ko ci wut bi ñu seet ba xam na mooy def yoon mi mu waajoon qaala mm-hmm. al Haaris ibnu Hammaam mm-hmm. Haaris ne na falammaa raaytu mu ko gisee mm-hmm. xan maa mu jeng ilaahay su yegtasi bu jëm ca fa mooy fàggoo almaala halal mu gis ne kii na jombul halal rek mën na koo taxa toog ci barab bi salaw hebbi na an haytu jiblu naa alayhi ci moom bi tax ni fi ci yeddeel dama daal ci kawam de ko yenn mm. na ko yenn yi alal àddina jaru ko seetal ni nga mm. li war a doon sa yitte mm. seetal li nga jox gannaaw alal la kalbi waa jëntuma ñaawalal la ko ko mubarakatal ma ëllëfi tàggoog miinuwaay wala alif yaa ngi xarit rek tax lay bàyyi ñi nga xëyatoon démb ak bërki démb dëgg-dëgg daal ni nga la nga wax loolu laa ko wax fa qaala mu ne ma mm. ilayka sori la an nii ci man sori ma laa mm. wax waaw comme xamoon ne nu ñuy waxee mm. ku la fere ne woon léegi nga wax ay aywa sori ma laa wax waaw comme xamoon nu ñuy waxee waaw ku la fere ne woon léegi nga wax ay sori ma laa wax la wax dégg nga ilayka dandu la an nii wala ma sori ma laa wax war ma na nga dégg min nii ci ma waaye xaaral sis ne ma wax hmm. la tas bu wanna hmm. ila watan hmm. fihi tudamu watum tahan warhal an iddaari lati toolil wihaada ala alqunan warab ila kinnin yaqi walaw annahu hidna hatan warba bi nafsika an tuqima bi haysu yaxsaka daran mm. wajibil bilada fa ayyuha mm. ardaka faxtarhum watan ودع التذكر للمعاهد والحنين إلى السكن واعلم بأن الحر في أوطانه يلقى الغبن كالدر في الأرض يسر تدرى ويقب mu ne ma laatas bu wan na balde jeng mm. balde soppu ilaa hmm. watanin jëm ci dëkk boo xam ne hmm. fii ca dëkk ba hmm. to daamu la la gottee rek la déebi la gàcceele rek wutum taante déebi la doo adam foo xam ne suufe rek ak doo ade nga faa la fay nim si waaw foofu la fay nim si daa tax bu wan na bul jeng ilaa watanin jëm ci dëkk boo xam ne tudaamu dem na la gàcceel mm. fii ca dëkk ba mm. watum taante dem na la fa doxata mm. loolu nit ñi sëñ Tuba dafa wax aajo li Yaasin dégg naa ne ko ne ko ne ko ne ko sa bàyyi bu la tàggale bu la gàcce jarul nga de ko tàggale ñax ak baara yow it fii laa juddoo rek dorobaan ne nga baa nekk doo ca bañ a gënt nit ci daan nga am rek la am dégg naa ne sëñ Tuba waxoon na ko aji li fekk bu wanaat ah ñu ko ta bàyyi daal bu la du tàggale gàcce daal jaru yow nga ne ko tàggale baa jaru ba jaru ba jaru ba leen war xal sa nga laxas dinañ ko boo jàngale boo koy def. da ngay xam ne xam-xam ngay waxtaanee. subaa na borom xam-xamu diina boo soxla rek. da nga ko andi. waaw dégg nga baax a baax wax ci kilifa tariqa. ndeg tariqa. ak wax ci kilifa wax ci moom. ndeg borom xam-xamu diina la. bokkuñu. waaw bokkuñu bokkuñu waaw bokkuñu waaw. dégg nga baax a baax. waaw dégg nga. waral na nga laxas hmm. amit daari walit kër hmm. allati kër goo xam ne tool yi dana mu koweel hmm. alwihaada xur yi alal fona ni ji ji buda ji waaw boo xam ne ku du dara <coughs> moo xamee baat ba xamee man-man ba da yàqa de dem ko nangoo dëkk waaw koo mën a do suufe rek nga fay nee ak solowaane nga fay nee foofu nangoo dëkk warxal na nga laxas xanit mm. daar walis kër mm. allati kër goo xam ne mm. tool yi dana mu koweel alwihaada xur yi mooy ñu ñu dube ñi xaal konan ci njubuda ji kon de bu ko àdduna mele kon koy waab lebi kenn bu baax a baax laal maari mu ne idan xayara taiya bil buxli maadirun mu ne Maadir bu toogee di waxaati mu tayi naan gu yaa ay hmm. te loolu yu dell hmm. wa ayyara xusan bil faahati baaqilu hmm. baaqil di wax xusu nu saaya das na yaa ka dëd yaa ka tële wax ma loolu buñ ca àggee wa qaala suha li samsi anti sagiratun bi dibu suha da wax jant bi naan ko danga tuuti wa qaala dujalil badri daw ka afilu lëndama guddi di wax weer naan ko amoo leer mooy suñu àggee foofu daal xayaa moo toujours subaa dee daal gaawal dikk waaw inna alxayaata damimatun wa mm. yaa nafsu jiddi mm. inna dahraki hazilu mm. dee la wax waaw waaw waaye moom nag dafa gërëm ba dee moom ma ne maa di fa gërëm ba dee waaw la gisoon lu may gëlëm na ba dee de hmm. waaw waaral na ngay daw hmm. ilaa kinnin jëm ci néeg hmm. yëqii boobu dana mu la fegal da nga seet man na la fegal naaj man laa fegal taw man laa fegal ngelaw nga def ko muy sa néeg waaye bu wax loo xam mu foo fegal loolu jaru wala wan na ko boobale xidana xadanin ñaari wàlli doj wu ñuy wax xadan la xadana wa doj la wu ràññee ko ràññee soye boo sax muy ñaari wàlli doj wu ñuy wax xadan war ba na nga ñoŋeel binaf si ka sa bopp antu xiima walis muy sax moom bakkan bi wala antu xiima walis yow nga de sax bi hay yox saaka ci bu xam ne daf dikkal ak nu tilim calangu baax a baax mm. ne boo fa saxee mm. la jeg ci yow yëpp da nga koy manqué le mm. ko jarul dem waaw ah. nit boo amul li jeg ci ah, tili tili mu maana la li jeg ci yow boo ko amul ngi tilim waaw ah. waaw foo xam ne la jeg man la ko fa am defoo fa dara waaw war ba na nga ñoŋeel sa bopp an tuqima walis ngay sam bi hay fu bi dana la dikkal mm. addana nu tilim mm. wajub na nga dagg al bilaada dëkk yi mm. fa ayyuha kumu ci dëkk yi ardaaka gërëm loo namu la faxtaru tànn ko watanan muy dëkk utal ko mën a dëkk nga dëkk fa war dëkk du dëkk mën a dëkk muy dëkk amul fenn foo xam ne dina togg na ko nag fii nga dëkk mm-hmm. déedéet amul fenn fu mu mën a dëkk dina aaye ko nag bu ko dëkk mm-hmm. kon war a dëkk moom du dëkk mm-hmm. mën a dëkk rek mooy dëkk waaw war a dëkk moom du dëkk waaw mën a dëkk rek mooy dëkk waaw wajub na nga dëkk na nga dagg albilaada dëkk yi daa doon sama benn mbokk bu doon toog yàlla dem moo ma téléphone dama laaj lu ji sama xalaat hmm. ma ne ko man nag ni ko bàyyee xel xamee boppam hmm. léegi mu yaakaar ne ma nee na ko mu fa dem hmm. man amuñu lu may wax amuñu dara lu waaw dara dal lu ma ji wax waaw waaw moom a laaj lu ma ji wax ma ne ko man daal nit ku bàyyee xel xamee boppam xam fu mu yaakaar ne bu fa demee dana ko man muy xalaat dem ko man amul dara lu ma ji wax dara lu ma ko jox waaw wajub na nga dëgg nanga nga dagg mm. albilaada dëkk yi mm. fa ayyuha ku mu dëkk yi mm. addaaka gërëm loo na mu la faxtaru ko watanan muy dëkk wadaa na nga bàyyi atadakkura fàttaleku lil maahidi miinu waya walhanina ak binni ila sakan sakan mooy jabar ñooñ a am ñoo jox gannaaw di leen xilaat nii rek ñuy la baari ci fu sa tira nga nekk mm. kon bu ko def waalam xamal ne bi àdduna hurra ci naka gor fi awtaani hi ci dëkkam mm. yal xaada na mu dajee alxabana wàññeeku mu ne si gor ci biiri bokkam duñ ko jox xiimam mukk waaw waalam xamal ne bi àdduna hurra gor yal xaa dana mu dajeet mm. alxamana wàññeeku fi awtaani yi ci dëkkam mm. ka durri mu ngi mel ni wurus rek mm. yu tasra def na ko xeeb wa yóbbu xasu te def na ko wàññi fi samani ci njëg fil asdaf bu may nekk ci sadaf mu ngi mel ni wurus ci biir sadaf rek ca tabaxu suuf ca ca tabaxu ca ca bañ ko jëlagul foofu rek la wat wat tibru ka bi mulqan fi amakinihi mm. wala fi ardihi mm. nawam min alxatabi mm. ay ba mu xàgg rek summa qaala taf mu ne ma xasbuka na la doy mastama dali nga déglu waxabasa baax na ante yow la wi tabaata ba tam li ma la de lii na yow eh, xam na boo ko déggoon moom moo doon yedd Abu Seydin ci toog mm. waaye moom la ñu propagande mu ne nii mm. waaw xaalis mm. ne faaw dax to ma leeralal loo ñaal ko ma assuré samay ngànt ma nekk fa de lay boo gisee mënuma fee toll nangam la boo gisee mënuma fee toll nangam la wa kultuma wax loo ñaal ko ne ko kun nekkal assuré daa ji ngàntal sama xam na ya nañoo ànd waaye dama bëgg tàggoo bi daal bu ko gisal loolu la ko wax fa fa hadara mu ngantal ma hmm. mu nangul hmm. ma hmm. ngantal dara moom it mu ngantalul ma kon ma ne ma su doon nam bëggee kon ñu mu jox mu yóbbal hatta lam yadar ba baxu dara lépp lu may war a ma su ma sayaani mu bejante ma tasiyaan ab bejante jege ñaale yi ilaan rek war yow xaar mi jéggal hmm. mu ne ma gunge comme gis ak mbokkam hmm. maa moom ba ma war jéggal hmm. war daan tuuroo ma tàggu ma ñu tàggoo waa na te man asko maa ngi tawat albiraqa tàggaloo wa azumu te ma de ko ŋàññi waa waddu may ngéeju law halakal jamin law nga bind xanaa ki law kaana law kaana halaka law kaana bu nekkoon halaka di halaku aljaninu béemun ma oo moo ak ndem ma ne lii yëpp daal sa son doom ji dafa loolu xam ne ko dafay dawee kon duñ tàggal